barki Serigne Bamba Mbacké la de guerre du ma jël bu jël bu ma jëlee day bëri day daanu non combat bu logique la nag eh, lu de guerre bu ma dul jël parce que man dama xam fooram xam faiblesse am xam faayam ma jël billahi ñi bu ma di jël ma ñaawee la dangi dama baax ñi la de guerre dama jël waaw dafa ñëw di la jël ci mais nga wàcc dajeeg moom waaw mais yow ndax man yow man Zarko man ñàkkee naa noonu fayda ba njool di ma jël di ma fay di suuf man Zarko luñ may wax seen ndam rek ma jël si man te man may daaw xanaa kon waa gën ay rafatal ay yéen ma a yem waaw fii dafa ñëw di la jël si mais nga wàcc dajeeg moom waaw mais yow ndax man yow man Zarko man ñàkkee naa noonu fayda ba njool di ma jël di ma fay di suuf man Zarko luñ may wax ak li ma rek ma daaw xanaa kon mooy dama ma defoon moom ñu ngi fi naan man yëpp waa Garaayam rafatal ay rafatal ay yéen ma ko Garaayam ma ñëw fi barki Serigne Bamba Mbacke la de du ma jël ku jël bu ma jëlee day bëri day daanu non combat bu logique la nag eh, ma la de guerre bu ma dul fooram xam faiblesse am xam faayam lépp laa xam du ma jël billahi ma di jël ma ñaawee ku ne garde dama jël